beru am fii ci barab bi. yenn saa yi rang bi taxaw góor ñi jàll yenn saa yi taxaw jigéen jàll loolu nu mu demee. mooy bu góor ñi demee lu xaw a sakkan dañuy dagg góor yàlla ci kaw bàyyi leen bi dem ba jeex ñu àndi soxna yi bu ñu àndee soxna yi lu gën a sakkan bàyyi la ñu dem ba ba yàgg yàgg yàgg ñu daal di daggaar ca kaw andi góor yàlla yi ñu daal di demaat. bëgguñu góor bëgguñu góor yàlla yi ak soxna yi ñuy jaxasoo ci biir teggin yi ak di yëkkat seen kàddu ci ban bëggul loolu la fa bokk ci warmaay barab bi ak yëpp yoo xamante ni sàmm diggante ak barab bi la bëgg ñu jaxasoo bi ak góor ñi ci biir barab bi loolu moo waral loolu waaw. mel ni lii barab bi nekk benn dugguwaay. bokk na si waaw dafa nekk benn dugguwaay maanaam dañuy dugal góor ñi lu bëgg lu bari bàyyi la ñu dugg ba jeex ñu génnee buntu bee waaw bu demee na ba génn ba dem ba jeex. ci nañu doog a andi soxna yi ñu ñëw noonu nañ ko organiser. dee noonu dañu mën a am benn gàllankoor am na ci matuwaay bu jël waaw and suñu matuwaay yoon waaw incha allah ñu gën a sàmmante warmante barab bi rek sol rafetal sorin yi waaw sàmmante warmante barab bi même soxna yi tamit warmante barab bi sol wàññi coow li wàññi kàddu yi ba génn warmaay warmaay barab bi loolu la ñu si tëj jërëjëf sama. man soxna Aram Ndiaye Baye maam Diarra soppee sëñ Fall. aram ñu gis la nga nekk di organisation jigéen ñu dugg ziyaare na organisation bi nan lay demee. ah xanaa dama jërëjëf Serigne Touba rek di sant Serigne Touba bu wér jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Rafaal di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te wér ñaanal sëñ Sidi Makhtar yàlla yokk leeram xanaa kontaan si màggal gi rek xam ne lii sëñ Touba rek moo ñu ko defal liggéey sañ Touba la waaw yàlla nañ ci tasee ngërëmal sañ Touba mais kontaan nañ lool lool lool ci seen taxawaay yàlla na ngeen fi yàgg yéen tam lool te wér. wér ak wér la yàgg fi lool barke sëñ Fallou kontaan si màggal gi rek di ñaan yàlla. jigéen ñi ñëw di ziar si nii euh, yan condition la ñuy ziar nan la ñu war a melokaan bi da ngeen bàyyi xel wala. waaw ñoo ngi ciy bàyyi xel ndax du bëri dañ leen koo tere dañ leen war a tere pause tere leen sol yu yaraax tere leen xeesal xëy na xeesal moom des na ay benn benn waane ne yi moom ñu ngi koy dindi maanaam tel gën na ko suul noonu tam ñu ngi koy dindi ndax lii nii maanaam sëñ bi li mu bëgg rek la def. waaw maa maanaam ndigalu sëñ bi moom bañ koo jëfe faatu sax moo ni ko gënal moom waaw soxna yi moom ñi ngi leen di wan yoon wi daal di leen wax def leen nii waaw ndaxte ndigalu sëñ bi rek la ñuy déglu te loolu rek moo am solo kontaan nan lool ci màggal gi moom macha allah. léegi kon ku pose xefam ñëw fii te xamu ko woon bu ñëwee day dugg du dugg wala nu muy demee. waaw ku pose te xamu ko woon bu ñëwee buñ ko ko waxee am na ñooñ dañuy taxaw dindi waaye am na ci ñoo xam ne dañuy xaw a dëgër bopp waaye bu ko defee dañ leen di génne moom jumaa ji ndigalu sëñ moom dañ koy jëfe rek génn la ñuy def kay buñ ko dindee mu mel ne ñëw siyaara buñ ko dindiwul duñ siyaara lool rek lañ fi nekk waaw comme ne maam comme kër kilifa gi wax na rek amatul teg baat moom def rek. waaw murit moom ndigal moom jëfe rek jëfe rek lañ ci xam jëfe rek waaw bañ a jëfee ndigalu sëñ bi mën na la faat sax moo ñu ko gënal barke sëñ Fall waaw yokk ba yëg ko rek ca kaw ca kanam yal na ngeen fi yàgg loolu te wér sëñ Fall waaw sëñ rek sëñ Fall. Euh, di ñaan yàlla buur bu baax bi tabaaraka taala bi ci barke sëñ Touba. ku fi ñew ren yal nang fi fi de wen luñ fi ñaan yal na nangu di ñaanal señ muntaka yal na fi yag te wër di ñaanal sama señ maam Fatou fallu mu ma Ndiaye yal na fi yag te wër moy sama señ ma ngi joge xabru señ fallu dama dem ba joy fa ba sama baat bi de ndax rek xol bu xol bu neex rek di ñaan kep ku ñew lo ñaan na nangu ma ngi ñaanal sama njabot gu goor ak sama njabot gu jigen ak wa daaira Aqul Yaqin yi ma bok Ah, ak samay jawri nak lepp yal na yàlla nangu suñu ñaan yeen ñiñ fi fekk ngeen di liggéeyal Sëñ touba yal na yàlla teggi seeni ti tiis seeni seen i aajo màggal gi neex na lool safar yi mo jëkka neex bo demee Dakar safar yi neex na boo ñëwee Touba lo fi fekk ci ay safar day neex man de ma ngi ñaan képp ku yaakar Sëñ touba lo jublu yal ko Sëñ touba def man de soxna Fatou mu ya Baye Fallou di doomu Ndaama Njaay mooy sama sëriñ waaye rëcc wu ma ko poroxaan laa ko tàllal lay loxo mu de ma ne def coloré euh, ci poroxaan rëcc wu ci dara yal nafa fa yàgg te wér moom maam faatu Fallou. ban maa ngi jógee xaar yàlla ci Dakar waaw soxna maam Fatou mu xaar yàlla mooy sama sëriñ man nag maa ngi juddoo fi ñuy wax njabaay laa ñaar waaw waaye nag damaa nekkoon ci neneen waaye ci lii laa léegi am na taa xam ne damay faj. waaye bàyyi naa ko maa ngi ci sëñ Touba rek teguma ci leen waaw jërë ngeen jëf. Ousmane laa tudd. Euh, Géejawaay. waaw gannaaw bi ñu sant yàlla julli seen xam ne salaay salaam sant ko tedd ki muy euh, sëñ Touba tey mu woote bis bu euh, toll nii ñu bàyyi suñu lépp ñëwal ko kon loolu contentement la di ñaan yàlla ñu yàgg di ñëw waaw dañoo kontaan wax dëgg yàlla démb la ñëw. tey lañ def suñu ziar dugg nañ ziar xablu bu teer bi muy sëriñ sëriñ euh, Fallou Mbacké dugg ziar xablu bu bi muy sëriñ Saliou dugg ci yeneen xablu bi ziar dem ci ku tedd ki di maam Sere Fall Baye Fallou euh, sëriñ Touba ziar suñu xool seet na ñaan nañ daal suñu yéene ak suñu euh, suñu yéene ak lépp daal lépp daal lu ñu gëm ni maam Sere Fall amoon na ko sëriñ Touba ñaan nañ ñaan nañ ko ci taf nañ ko ci barkeem ak ki leeram waaw jërëjëf kontaan nañ daal wér suñu xol seen